matin 7h40 ñu dalal sunu gan Aminata Sow salaamaaleykum. salaamaaleykum baabaka ñu ngi lay gërëm bu baax ci teewaay bi di gërëm Georges euh, Déthié ci Aminata Sow yow yaay délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale ci tënk euh, ndimbalante ci réew mi bànqaas ba ko nguur gi jagleel yaa ko euh, jiite da ngeen nas projet bu bees bu tudd yokk koom-koom loola lumu. waaw euh, euh, jërëjëf euh, Babacar maa ngi lay remercier bu baax ci invitation bi ñu defal tey effectivement dañu nas benn projet boo xam ne mun nañu wax projet bu bees la mun nañu wax projet bi tamit beesul parce que da amoon na première phase pilote bu ñu defoon en 2018 ñu enrôlé ci quinze 000 bénéficiaires de bourse de sécurité familiale bi 2018 bi ñu defee évaluation bi phase boobu ñu gis ni que projet bi am na solo trop te am na njeexital. si euh, bénéficiaire de bourse yi moo tax ñu defaat beneen phase d'extension bi yoon ñu war ko yóbbu à quarante cinq mille ménages projet yokk koom-koom nag dañ ko tuddee yokk koom-koom boo ko déggee rek war xam nga lu mu tekki a priori euh, dañ def projet yokk koom-koom pour jàppale ne euh, ñi nga xam ne ñu ngi déjà ci programme bourse bi di recevoir vingt cinq mille ñu leen di former pour euh, le changement de comportement dañ jël beneen composante yokk ko ci muy troisième composante boo xam dafa leen di permettre ñu def euh, ay koom mun a am xaalis boo xam ni dina leen jëriñ pour ñu gën a mun a influencer ci seen condition de vie ñu am ay moyen mun a faj seen soxla loolu mooy projet yokk koom-koom projet yokk koom pour pourquoi ngeen gën a ciblé ñi nga xamante ne ñoo di euh, ñi am bourse de sécurité familiale alors que am na ñeneen ñi nga xamante ne yitte woon nañ ko te amuñu ko. xam nga euh, lu tax ñu ciblé leen parce que dañu enrôler président Macky dafa décider enrôler trois cent seize mille ménages yoo xam ni dañu néew doole. jàppale leen pour ñu génn ci seen situation de pauvre d'extrême pauvreté ñooñu nag boo leen accompagner avec de l'assistance il faut nga permettre leen ñu def création de richesse. au lieu que ngay jël di jël ñeneen bàyyi ñii te yaa ngi leen di jàppale génn guñu ci seen situation boobu ngay jël ñeneen dañuy def piir groupé sur les mêmes cibles ñu defal la le le ma le maximum de service pour que ñu wóor ñu ne ñii dinañ génn ci situation bi ñu nekk bi loolu moo tax ñu tànn ñooñu euh, ñi nga xam ne ñu ngi ci déjà ci programme bourse peut-être rappeler pertinence su programme bourse bi. mais bu la ñoo sori euh, est-ce que dañuy dëkkal bourses familiales yi wala dañuy yokk euh, dañ leen di yokkal projet bi. dañ leen yokkal projet bi dagguñu ko. bu hmm. leen fàtte ni ko 300. da ngay continuer jot sa bourse familiale daal di jotaat lii ngeen nas di projet yokk koom-koom. exactement noonu la demee mais il faut ñu préciser ni ko du ñu am bourse de sécurité familiale yépp ñoom ñoo ñoom la projet bi concerné boo lee gisee comme phase pilote bi dafa nekkoon 15000 bénéficiaires ñu def ko sur les régions de Dakar Thiès Kaolack ak Saint-Louis. bii yoon ñu ne nañ nañu def bi ñuy defee évaluation ñu gis ni que am na ay résultats yu probants évaluation bi dafa wane ni que grâce au projet yokk koom-koom ñi ñi ci nekk ñi les enrôlés am nañu euh, une augmentation de deux pour cent ci seen euh, euh, revenu ba pare seen consommation augmentée de 6 pour cent léegi dañ koy def extension bii yoon dañ ne extension nañ def équité territorial nañuy may chance communes yëpp yi ci Sénégal yëpp. loolu tax ñu organiser ay CDD xaw ma ndax suivre ngeen CDD yi organiser nañ ko ci département Sénégal bi bu ñu koy organiser tamit dañuy woo maire commune yi nekk ci département bi yépp dañuy woo également euh, euh, kii bàjjenu gox yi président AES yi en tout cas tous les porteurs de délégués de quartier yi euh, chef de village yi ñëpp dañuy ñëw toog ñu def tirage au sort dañu jël quarante cinq mille ménages yi ñu ne ñu ne yan communes ñoo ñoo concerne cinq cent vingt neuf communes lañ jël. parce que commune yi duggoon déjà si phase pilote bi dañ leen génne commune yi nga xam ne nag dañu am moyen de douze bénéficiaires de bourse itam dañ leen di génne dinaa expliquer pourquoi ñuy génn ñoo xam dañu am moyen de douze euh, bénéficiaires biñ ko defee ñu am cinq cent vingt neuf communes léegi nag chaque département bu ñu defee dañuy jël benn panier dugal si turu commune yi commune bu ne ñu dugal si aussi euh, bu ñuy tirage par commune commune bu ne dugal par quartier soo xoolee 529 communes yooyu boo ko boo ko partagé si commune bu ne dafay am 87 bénéficiaires ñu def tirage au sort ba egg 87 mais yenn saa di nga def tirage au sor nga fekk ni que beneen tirage boo ko jëlee day ëpp 87 bu baax sax ma joxe exemple par exemple Patte d'Oie dañ njëkk a tiré euh, Soprim génn mu am mu nekk am 30 bénéficiaires egg guñu 87 ñu tiré Grand Médine génn Grand Médine à plus de 200 bénéficiaires. mënuñu dugg ci benn quartier bari xaaj donc noonu lañ ko defee devant tout le monde ñëpp am information dans la transparence ñu expliquer leen ñëpp comprendre nekk au même niveau d' information. justement transparence boobu laa bëggoon ñëw sax est ce que yan garantie ngeen di jox nit ñi li tax may poser question bi amul lu ñu waxul itam ci bourse de sécurité familiale yi ne politique ci lalu ña koy euh, ña ña cay jot bi pas donte sax door ngeen ko lu xaw a yàgg. mais yéen a ngi ci yéen a ko gën fësal euh, à la veille des élections législatives. xam nga ñun dañu am suñu calendrier nit ñi foog naa euh, seen euh, analyse yëpp dañ koy basé ak ci politique bi mais ñun dañu am sunu suñu calendrier parce que dañuy def évaluation l'évaluation a été concluante ñu wut yeneen financement financement yooyu tamit bu ñëwee dafa am ay dafa am chronogramme bu ñuy defar chronogramme bi depuis ces activités préparatives yi ba si euh, kii euh, déroulement euh, pro kii CDD yi ba si choix des opérateurs loolu yëpp c'est des c'est un processus boo xam ne dañ ko étaler si calendrier boo xam ni ñun mënuñu basé wu si période campagne parce que activités yi day continuer mais camp législative moom ñëpp xamoon nañ ne bu nekkul juin nekk juillet. yàgg na waaw xëy na xëy na loolu. mais période fin mandat député mais les activités hmm. continuent. mu am élection mu ñàkk am élection les activités continuent. Mhm. bourses familiales yi xam nañ ni euh, juróomi junni ngeen di jox ñi ko war a jot ñetti weer yu ne noonu la euh, yokk koom-koom gi ñaata ngeen ciy def ak ñi nga xam ne da ngeen ne da ngeen a bëgg a yokk seen koom-koom lu ñuy jot. waaw euh, si ciblage boobu ñu def. nee naa la 529 communes yëpp concernées ci 529 yi dinañ toucher plus de 1790 villages et quartiers bu ñu demee ci village ba quartier bi bénéficiaire bourse yi dañ leen di organiser en association communautaire d'épargne et de crédit bu dee village la association villageoise d'épargne et de crédit association bu nekk mu am au moins 12 membres léegi nag 12 membres yooyu membre bu ne dinga jot en cash 150 000 mais avant ngay jot cash boobu dafa am benn processus bu ñu def parce que dañuy recruter ay formateurs formateur yi dañuy des formateurs des formateurs du former ay nit ñooñu tamit dañuy ñëw former bénéficiaires de bourse yi dañu leen di former en germe former leen en éducation financière en leadership former leen de sorte que ñoom dinañ xam ni que ñii am nañu aptitude. dérouler ay activité ci de bi. ñu cent cinquante mil boo ko jotee loo ci mën a def. waaw ñu exiger déjà sa présence boo demee ba nga xam ni wane nga ni am nga ñëw nga tu es assidu aux séances de formation que mokkal nga fa ñu jox la cent cinquante mais cent cinquante mille yooyu dans un groupe de douze ça fait une manne financière te xam nañu activité génératrice de revenu yi demande selon selon euh, filière bi ngay jël demandewul moyen yu bëri. donc loolu te am na phase pilote bi nee naa la phase pilote bi phase pilote boobu wane na. ci lan lañ ci lan lañ mën a yëngu ngir mën a ful cent cinquante mille ba bénéfice génn ci. gis nga euh, dañuy ñun duñ leen exiger ban activité la ñuy def ñoom si seen bopp ñoom ñooy wax ban activité la ñuy def ñoom ñooy joxe seen idée de projet d'ailleurs si formation bi dañ leen di accompagner si plan d'affaires ak accès au marché. ñoom ñooy xam ban lan lañ bëgg def parce que nit ki soo bëggee mu réussir si lu muy def il faut nga bàyyi ko moom mu am appropriation si activité bu muy def doo ñëw ne ko dafal teel activité moom activité bu mu gën a sentir boppam si activité boobu si lañ koy liñ koy. xaalis bi ab ab leble la wala ak may. subvention la. à cent pour cent. maye la maye la waaw maye la. nu ngeen ni nu ngeen ni mën a amee ay garantie ne ñi ngeen jox cent cinquante mille daañu ko dugal cëb liggéey ci projet ngir mu yokk. exactement projet bi yokk koom-koom dina nekk aussi euh, occasion daf création d'emploi parce que dinañu recruter plus de cinq cent quarante accompagnateurs. dinañ recruter plus de deux cent vingt six formateurs acom chaque groupe dafa am accompagnateur boo xam ne moo koy suivre si processus projet bi yëpp durée projet bi yëpp kooku daf koy suivre donc loolu pour daf garantie pour euh, réussite projet bi nee naa la phase pilote bi si phase pilote bi dafa dañ defoon ñaari type de paquet koo xam ni dañ koy former organiser ko en association communautaire d'épargne et de crédit wala association villageoise d'épargne sans jox ko cash parce que xam nañ ni que Sénégalais am nañu culture mbootaay daf ay tontine di leblante crédit revolving moo tax dañu comparé ñi nga xam ne jotuñu cash ak ñi nga xam ne jot nañu cash euh, tournée bi ma defoon Tiwaawoon dama visité euh, ASEC boo xam ne jotul woon cash mais ñu ngi def ay résultats yu extraordinaire kenn ki dafa am këram dafa yaatu dafa def maraîchage ci gannaaw këram mais maraîchage bi dafa réussir ba mu jënd deux hectares doon ko aménager ñeneen mun naa si même groupe bi da nga di nga mun nañ am activité euh, collective mun nañ am ku nekk tamit seen activité yu ndaw. donc ndax ndax da nga bëgg wax ne ci par exemple dans un groupe de douze kenn amul droit par exemple jël cent cinquante mille yi defal ko sa bopp. si dañ ko war a boole wala. Euh, euh, dañuy ñoom dañuy or comme ni ñuy def rek parce que dañoo fekk si ñu. si hmm. culture Sénégal mun nga am sa activité à part. bu bokkul ak activité de groupe bi. Mhm. ñoom ñooy décider dañ leen di bàyyi ñu parce que formation en leadership. bu ko dugal ci dépense kër ga nag. non euh, doo ko dugal sa sa bénéfice mun nga ko fa dugal mais dañ lay sensibiliser former la de sorte que nga yow nga xam. booy liggéey naka ngay def ba liggéey. liggéey mun naa cent cinquante mille jar ceeb ak diw de. <laughs> wala ay quantité jot ak yooyu. non mënu ko jar parce dañuy accompagnement bi ñu leen defal ak sensibilisation formation bi ñu leen defal bi en entrepreneuriat moo tax duñ ko jël daf ko ci ci ci marmite. 150 000 subvention la nga ne da ngeen koy maye ñu gis beneen bànqaasu nguur gi bu ñu naan DER moom di leble ay 150 000 ak i 10 000 ak i 20 000 tuddee ko ay nano crédit ak ñoom seen loolu moom nu mu mënee ne di def lii di def laa. na xam nga euh, lu ñuy wax nit ñi peut-être duñu jéem a nekk à la place de nos cibles. mais ki nga xam ni mu ngi jaay mënoo doo ñëw rek jox ko xaalis bu bëri il faut nga xam capacité d'absorption financière. non dama ni yéen DER day leble yéen ngeen di maye loolu moom nu nu ko nguur gi mën a euh, defee. mais am na ñoo xam ne boo leen leblee da nga leen di sonal moo tax nguur bi dafa dem ku nekk sénégalais bu ne sa situation bi nga nekk si la lay fekk jàppale la selon sa besoin yi ngay am pour mun a génn si problème yi nga nekki soo gisee ñu def protection sociale loolu la. programme national de bourse de sécurité familiale loolu dafa am ñoo xam ne assistance lañ soxla am ñoo xam ni weesu nañ foofu ñi nekk ci extrême pauvreté assistance nga leen mën a def pour tirer leen ba ñu egg ci ligne de pauvreté bi ba ñu dépasser ligne extrême pauvreté bi nga jàppale leen ñu mën a def création de richesse si loolu lañ nekk ci commune gis nañ ni ko autonomisation économique bi tant que dugaloo ko doo mën a am des résultat probants moo tax ñu dugal troisième composante bi mu nekk lu bees ci programme national de bourse de sécurité familiale boo xam ne dafa nekk un programme de grande envergure boo xam ne ñëpp ñu ngi koy ñun ngi ñu ñu koy euh, ñu ñu ngi koy seetaan si ñun même euh, les occidentaux dalee di dañu ñëw di seetaan si ñun ñun naka la ñuy defee programme national de bourse parce que bu ñu fàtte ni que programme bi c'est sur ressources propres état bi moom si boppam moom moo garantir que bourse de sécurité familiale si budget am si lay génne. mais ce important. yokk koom-koom bi euh, bu demee ba mu commencé jur dara. Euh, ñuy commencé am ay bénéfices à est-ce que ñi nga xamante ne ñooy bénéficier ci programme bi am itam ci bourse de sécurité familiale yi dañu mujjee bàyyi bourse de sécurité familiale ñu jox ko ñeneen xanaa. waaw dinañ dem ci recertification bi moo tax nag fi mu ne nii balaa ñuy génne kenn daf ñuy wóor ni que déjà. effet bi ñu doon wut résultat bi ñu doon wut si ñoom am nañ ko loolu mooy pertinence su dugal troisième composante euh, kii autonomisation économique. Mmh. leneen di formateur yi nga xamante ne wax nga ko noo leen di jëlee en charge parce que déjà nee nga ni euh, dañuy da ngeen di créer ki euh, ay emploi formateur yeeg ñi nga xamante ne ñoo di ñiy gunge ñi nga xamante ne ñoom ñooy bénéficier ci programme yokku koom-koom gi. Mmh. dañuy def recrutement. gis ngeen ni que def nañ déjà appel fu ONG yi la ñuy liggéeyal ñiy accompagner programme national de bourse ñooñu dañuy def recrutement ay formateurs des formateurs def recrutement aussi formateurs yi def recrutement accompagnateurs yi groupe de douze bu ne di nga am accompagnateur boo xam mooy ñëw di leen coacher ba nga mu assuré wu ni que yéen yéen a ngi ci yoon bi soo leen bëggee jàdd mu defar ci kaw yoon bi pour garantir réussite projet bi mais ngeen di maye te fin banque mondiale moo leen financé. mais c'est des subventions nee naa la ñii. léegi banque mondiale lan lay xaar ci loolu dañuy fayaat wala luy euh, dañuy remboursé wala. am na am na loo xam ni c'est des c'est des dons. Mhm. état Sénégal moo dem lijjanti. ay dons yoo xam ni ci banque mondiale la jaaree mu ñëw ci ñun. lépp ñaata lay doon bu ngeen de séddale cent cinquante mille cent cinquante mille. séddale wuñ cent cinquante mille dañuy joxe cent cinquante mille boo ko xaymaa ci dina ëpp onze milliards yoo xam ni du cent cinquante mille parce que bénéficiaire bu ne. coût bi muy revenir c' deux cent cinquante mille en moyenne. benn yoon ngeen koy joxe wala di ngeen ñëwaat déwén joxewaat ko. non benn yoon lañ koy joxe parce que on est sûr que dina réussir. Hmm, xaw xaw naa xeeñ troisième mandat de xaalis bi ngeen xëpp nit ñi. xaalis bu ñuy xëpp non dañuy liggéey rek gis nga dañuy liggéey gis nga Sénégal yi li may wax ñoom ñoo war a saraxu président Macky Sall pour mu mu des def troisième mandat mais moom ah, sonn na ah, ah, liggéeyal nañu oui. kon yow da nga bokk ci ñi nga xamante ne ci biir APR ndax itam. responsable APR loolu laa gisoon de. man de dama gis ni li li ñu liggéey fii ci Sénégal bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu kenn benn couche sociale bàyyiwuñu benn secteur sénégalais ci bopp boppam ñoo war a saraxu président Macky Sall pour mu des. pourquoi te yoon waxu ko. loolu loolu moom egg gu ma foofu. waaw ah, waaw troisième mandat daal nga gis jërëjëf Aminata Sow. délégué général à la protection sociale et la solidarité nationale noon la boo ku nekk rek euh, ak euh, sa gis-gis. li ma waaw mi ngi noonu jërëjëf euh, Georges ñu ngi ziar Soxna Naata mbay ak ñi mu àndal ñu doon waxtaanee programme bu bees bu ngeen tuddee yokk koom-koom boo ko ci li ngeen bëgg a dimbalee ngeen ni nit ñi ci ñu yokk seen am-am seen poos jërë ngeen jëf mbokk yi àjjuma ak jàmm.